Salut les amis de Babo Show et de Sport TV. Merci encore Gaël de la confiance en nous nouveau Merci de des likes. Merci de des abonnés. Merci également Gaël de baisser les commentaires. Un hein. plaisir nous nouveau Chaque fois, d'y partager des informations. Inbox sénégalais fait pour les maintenir. 14 régions du Sénégal. Rokhroukhari, Gorgokhari, ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci la l'hôpital ci kër du 2 février. yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëwee rek jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo Nous fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi de doit donner suñu borom xale leen àjjana fi ndaw si Gaël te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSportivier et de Baba l'actualité on continue d'ailleurs que les nouvelles fas Anthony Rudiger ak ni de gars mais également Messi Mignon, ñëw nag wax ci Game of Thrones mais aussi qui nga Sébastien Haller ak Dal, li ñu ko defal yépp ñu fas yéene ko justement on commence par Sébastien Haller mon gannaaw bi mu xeexee ba gagné cancer mais également gagné Coupe d'Afrique des Nations ou pu Puma dañ ko defal daal en or des chaussures en or lañ ko defal def également logo bu fédération ivoirienne de football pour daal di ko koy sargalee ko ngeen gis ko mi ngi nii daal yi xaar moo leen ko mu gën a leer seen kanam donc gis ngeen ko ak logo euh, Côte d'Ivoire bi fédération ivoirienne bi donc lii la ko daal la ko Puma defal pour rendre ko hommage des chaussures en or en tout cas ci suuf or la carrément ah mu ngoog lii daal euh, pour wan ko aussi li mu xeex ba egg fii parce que c'est aussi le buteur de la finale mais aussi fi mu jugee ak cancer bi et tout pendant ce temps boy yi ñoo nekk Europe mënoon nañ ci def Endrick ak ñoom kii di Amara Diouf mais ñooñu nekk guñu Europe mais Europe daal jeunes yi ñoo fa nekk di toj muy Lamine Yamal Wirit ki nga xam ne également mooy donc Jamal Monsieur bokk na ah, donc euh, Bellingham qui est Javi Simons entre autres il y a même ci ay joueurs qui di donc qui euh, euh, dit Nicolas Jackson avec son nouveau look disque comme ko mi donc du côté des Blues de Chelsea l'attaquant sénégalais donc au moment d'aller reprendre entraînement yi gannaaw trêve internationale bi ki également qui donc le joueur du Bayern de Munich mais également hein, Alphonso Davies moom dal naruta ben yon def li nga contrat du côté du Bayern Munich ndax fi nii daal gars yi dañ koy topp ba sonn proposé ko beneen kii d' accord ci salaire bi millions la moom Real Madrid la war dem loolu daal lañu yaakaar Lucas Paqueta également waa Arsenal également Manchester City ñi ngi ci di ko pour mu daal signer donc foofu noonu parce que actuellement dañoo bëgg mu ñëw signer fa maintenant ñaari club yooyu ñoo nekk di concurrence kii nag di Skriniar bonne nouvelle gannaaw bu mu gaañoon ak ñi nga xam ne Paris Saint-Germain reprendre li nga xam ne mooy entraînement entraîneur tey di également Marquinhos entraîneur nous Nuno aussi entraîneur. normalement loolu daal la yi wax ñuy waajal nag seen match dibéer gi incha allah rabi ñoom ak waa olympique de Marseille ki nga xam également nag mooy donc Alexandre Song moom daal moo daal di critiquer ki nga xam donc Samuel Eto'o fils moom mi nga xam cousin euh, kii le euh, Rigobert Song nee daal li mu comprendre mooy que ne Rigobert Song da doon defar listam bu defee listam da ko jox fédération bi mais bu ko jox fédération bi dañuy gis ne liste bi dafay changer beneen liste lay nuróol donc moom mi ngi junj foofu ne ki nga xam mooy Samuel Eto'o moom moo doon jël ay joueurs yi mu ciy def def ci ñi mu ci wàññi mu wàññi ci loolu daal la daal di xamle euh, ki nga xam ne donc Alexandre Song moo ko daal di xam loolu nag bu nekkee loolu la daal jur na coow gu rëy rëy rëy te lu garaaw la du côté donc des Lions un <coughs> table bien sûr également qui Game of Thrones qui n'a ko bon film ngay Game of Thrones c'est un film tax di ko a God of Thrones ndax un film seetaan ko seetaan waat c'est Donc, donc aujourd'hui qui un fan de Game of Thrones Anthony Rudiger Anthony Rudiger photo ci kooru daw bi genre yi la doon def mu def photo bi nag gars yi commencé naan moom salafiste la extrémiste la tu vois yoo leen ci wax di ko tuumaal moom na mu génn nee na sax porte na plainte parce que nee na li mu def nii li ko it xam ne mu ne tawhid la donc signe ci di ci diine islam la donc reconnaître nañ ko donc la wane également que ne euh, lii di diine islam aussi diine jàmm la diine salaam la diine koo xam ne également moom dafa gëm ne benn yàllaa fi nekk mais aussi day wax li nga xam mooy union lay daal di prôné donc bu ko kenn dugal di ko wax leneen ak yu ni mel donc moo tax nee na moom daal il assume que ne jullit la donc def ko moom il n'est contre le terrorisme mais nag porter na plainte pour le numéro gars yi bañ ko ko donc di wane également gars yi fi ñu mentalité ñi fu mu toll gars yi nak nag moo nekkoon information ñeen bëggoon jox c'est toujours un plaisir hein, de vous servir di leen wax ngeen wéy di like di wéy di abonner. on avance ensemble dans la magie de Baba Show et de eSport TV bu baax a ci la bonus ñu gars yi ngeen